comportement yi yu bari hein ah, war nañ ko euh tay nak euh, dama bëgg tambali ci Ahmed Suzanne Camara mm-hmm. <coughs> parce que aussi euh, comme ñom lañu ñu dénk ñoo yor ciak càq gi mm-hmm. ah, kon buñu tambali ci ñom lañuy tambali mm-hmm. euh muy détenu politique yi hein ah, détenu politique yi ben, mais arrestation yi parce que dañu gis euh, jamono ji arrestation yi doy war trop ci Sénégal ñu japp ki di Fadilou Keita hmm, bokku ci di dom ci Nafi Ngom Keita bokku parti Pastef ñu ñu téye ko euh, ñu ko téy nak ci benn poste bu mu defoon euh, ci la mort de Fulbert Sambou ak disparition de Didier Badji mu jur polémique bu reuy aussi fi ci Sénégal mhm. euh, ñu gis Ahmed Suzanne Camara tok ci benn plateau télé Sen TV Ndoumbelane ci suñuy confrères mais man ni ku dëggal né assassinat dafa am manam dañ leena a mhm. parce que dañu am lien ak Pape Alé mhm. bon muy kàddu yo xamantene que je trouve euh, dangereux Je ne la ci moom parce que Ahmed bon mais souvent waxam <laughs> parce que fi ay temps Sonko tu ko mm. hein? mais du ci du ci du ci du ci du mais la disparition la. Mm. carrément ah, parce que lien ak parce que japp wax c'est d'une extrême gravité wala Donc, lo xam la ci dossier lu lu procureur d'abord limay wax ci li mhm. arrestation yi ak politiques mhm. leader d'opinion. mais euh, peut-être situation moko waral. Mhm. Euh, ils ont pris des positions. ak position peut-être mo leen yobé alors mais euh, ku nekk am nga droit wax sa position. moo xam nga nekk ci pouvoir bi moo xam nga nekk ci kujje jig wala nga nekk citoyen lambda wala euh, simple citoyen sénégalais. mais aussi booy yëkkati ay kàddu dafa am foo ko war a teg. mais am na kàddu yoo xam ne boo ko yëkkatee aussi borom ki nga ko ki nga ko yëkkati. am na droit porter la plainte wala boog procureur su fekkee ne dafa am euh, dafay menacer la stabilité pour réew mi wala ak yooyu. donc procureur wala yoon war na la mën a mais boo xoolee tey ñi jàkkaarloon opposition bi. Mhm. tey ñoom lu leen neex la wax lu te pratiquement du mujj fenn wala boog ñoom dañu jàpp ne du warul mujj fenn wala opinion bi opinion Sénégal pratiquement sax non lay fonctionner dem ba nga donc ñun daal ñoom ñun duñ def dara wala boog ñun lu ñu ko mais ñoom lu leen neex la ñuy wax lu leen neex la ñuy def. ah bon oui c'est c'est exactement ça. Euh, Ousmane Diagne bi ñu koy jàpp lu ñu ko jàppee bu ma fiyaa kàcc kàcc benn benn benn benn émotique bu reetaan ci lañ ci lañ ci lañ ko jàpp ba léegi mi ngi ci mi ngi ci kaso bi. ku ma ni Pape Alé bi ñu koy jàpp lu ñu ko jàpp en tant que journaliste d'investigation lan lañ ko jàppee. Mm-hmm. mais c'est son devoir son rôle d'investigation mais mënul waxe ay ay ay kii ñu téye ko dugal ko ci kaso bi. Mm-hmm. Hein? Abdou Karim Gueye Cheikh Omar Diagne ñen Fadoul Keita ci benn poste tandis que bobu yow yaangi yaangi yaangi yaangi dugg sa auto di daw di dugg ci dëkk bi mm-hmm. té li nga wax gëna graw mm-hmm. bon man man duma juge peut-être yow yaa jugé noonu mm-hmm. né man li ma wax mo gëna a xam nga ñom ku ci nekk duma revenir ci li nga wax wala li nga def bañu ñu jàpp la parce que sinon euh, dañ leen di juger te amna ku leen wara juger ndax suma suma suma né par exemple li ñu def li waruñ ko def wala li ak li lañ wax ak li moy conséquence bi boba yoy di nga ma indil avis contraire mm-hmm. n'est-ce pas mais tay ñom li may comparer moy fadilu Keita par rapport ak kaddu yu ma yëkkati ci chaîne de télévision bi nga wax mm-hmm. mais cadre man japp na né euh, fadilu li wax mo gëna grave parce que mom dafa accuser l'État du Sénégal te man dama junju mm-hmm. man dama ne jàpp naa ne ñoom xaruwuñ te it aussi labuñ ci géej gi ci ndox mi. Mhm. donc dañ leen éliminer. ah bon oui. mais euh, lolu nga wax lo wax kàddu yoy nga wax fan nga ko teg concrètement da nga am lu concret lo teg sa loxo. Mhm. wala lan mo la pousser ba nga wax lo parce que tebo te pré ce cœur rek dem ci télévision ba. né nañ leen éliminer lan moo tax nga wax lo waaw mais lolu am lutax mo wax ko. mais comme tay affaire bi am fumu yegg parce que ñom tay ñu ngi wax né nama yoon d'ailleurs ca jour ba lañ ko commencé. Mhm. ndax am na journaliste bu fa toogoon xaw ma chroniqueur la xaw ma lan la parce que it du ñëpp ñooy journaliste wala boog am na ñoo xam ne dañuy dañu nekk journaliste mais peut-être dañuy def politique. Mhm. son baal ma mais est-ce que yaa ngi yaa ngi yaa ngi xalaat mhm. maanaam la gravité de li ngay wax nii ci plateau bi est-ce que yaa ngi koy yaa ngi xalaat devant tous les sénégalais. Fulbert Sambou am ay mbokk. am ay yaay am ay doom. Didier ci noonu am ay mbokk. nga toog ci plateau ne dañ leen assassiné. dëggal loolu. ba pare waxoo loolu yam ci da nga ne dafa am lien ak Pape Alé Niang te gis nga Fadilou Keita ci mhm. postam dafa ne mhm. déglu leen bu baax li mu wax naa ci mhm. postam bu ñu posté dafa ne je pense que vous ne l'avez pas tué vous n'avez pas tué vous n'avez pas tué vous n'avez pas tué mon frère loolu la wax j'espère que est-ce comprendre nga Bokul ak yow mi tok ci plateau ne dañ leen a assassiné parce que dañu am lien ak Pape Alé Niang yow normalement sa kër waroo wartoo gis sa kër ah ci li nga wax ni non mais man xam xam nga tay c'est le procureur qui apprécie yone mom moy apprécier man li ma wax ak ak lu kenen wax te man japp naa ne boobu ba comme yone waxuma interpellé wu c'est parce que li ma wax mais euh, amul amul lu ci lu ci lu ci doy waar oui amul lu ci doy waar. mais mais kan moo war a am intérêt tey rey li mu wax li mu kan moo war a am intérêt tey jii. waaw loolu mën naa ci ak Didier loolu mën naa ci ñëw. donc ñoom euh, xam nga wax naa ko léegi. Euh, sëñ Saliou moomu. du moom moo war a wax procureur mu woo ma mu déglu ma euh, du Bassirou Diomaye moo war a wax procureur mu woo ma du ku bokk Pastef moo war a woo wax procureur mu woo loolu du ma ko nangu. je ne l'accepterai pas lu nga nekk lu nga nekk affaire aussi loolu moo non non non non, ma non, non question la. non, non non? Non, non non non. attention il faut que nous waxante non, aussi hein. Mhm. on parle aux Sénégalais. non, mu wax non, man ko yendu sama il faut ñu waxante non, non, Ahmed non, Camara wax man non, ko sama mais man dama bëgg wax dama bëgg mhm. aussi nga wax ma nga wax fan nga ko

te it ci réew mi laa bokk yéen yow mii dangay am ay information yoo xam ne ah, ah, le le citoyen lambda du ko am mm-hmm. man aussi je peux des informations yoo xam ne kene Clédor euh, amu ko wala Clédor am loo xam ne information Ahmed Suzanne Camara a mais man li ma wax détient des informations sur la mort de Fulbert Fulbert ak ah ak ak ak Didier am nga cay information du ma waxantu mm-hmm. neew ma nag j'ai toutes les informations waaw mais xam nga aussi sénégalais nga jàkkaar loolu tey si dañ la ko ñaan mm-hmm. li nga wax tey jii mais suscité beaucoup d' interrogation di wax naan mais Ahmed Suzanne Camara warul fanaan kërëm fi fi réew mi toll ak limu wax mm-hmm. est-ce comprendre nga mais dañu bëgg comme yaa ci plateau bi mm-hmm. nga wax sénégalais yi li nga wax ne dañ leen a assassiné mm-hmm. fan nga ko teg ak lien bi nga wax ne dañ am ak Pape Alé Niang nga léral ko sénégalais yi mais mais lien bi ak Pape Alé mais loolu leer na aca ñoom ñu ngi woon ci enquête bi ñoom ils ñoom ils ont été mobilisés ci enquête bi waaw li xamante Pape Alé xaritam ay dañuy dañ daan jokkoo non non non non ñoom c'est une nous liggéeyukaay une may ñom ñu dugg ci enquête bi. ñom ñom ñaar ñaar ñoñu ñoñu euh Fulbert ak Didier. oui ñu won enquête bi. ban enquête enquête affaire Pape Alé bi. li tax ñu lu tax service nous len mobiliser d'accord service nous len ci mais nous ne enquête Mm-hmm. moo tax ñu na leen. ah non waxuma looloo tax ñu assassiné mais ñu ngi woon ci enquête bi. mais kii kan kan moo am intérêt. Mm-hmm. ñoom ñu disparaître. Mm-hmm. kan moo am intérêt ñu éliminer leen. dootuñu ànd ak seen bakkan dootuñ dund. ba nga xam ne enquête bi dootul continuer wala boog enquête bi dina am dina taxaw wala dina am luñ ci xam ak luñ ci xamul. kan moo am intérêt kan moo ci am intérêt. léeg-léeg boobu en tout cas du pouvoir du ñun. kan moo ci am am intérêt. kooku su fekk mais raxas ci seen bopp pourquoi. ñun. non man xam naa que nous amuñ ci intérêt. si ce n'est pas vous c'est l'opposition. oui non certainement Pape Alé ak nous, nous sommes Ousmane Sonko. ñoom Nous sommes am intérêt kon ñoom nga xalaat ñoom ñoo rey. si s'il y a commanditaire c'est Ousmane Sonko et Pape Alé ak ñi ñu àndal. Ah, mais mais non il ne faut pas accuser des gens comme ça mais quand même quand même quand même li ngay def nii c'est grave il ne faut pas dire ça. Ah, tax toog ci plateau ne buñ buñ leen rayee Ousmane Sonko la ak ak ñooy ñoo am. ñoo mais léegi nañ ma may Ousmane. Euh, comment il s'appelle encore sax Ahmed dama xaw a jaaxle li nga wax dafa rëy <laughs> léegi dama bëgg a xam Ousmane Sonko Pape Alé Niang ay consorts lan lañ mën a am tay ji mhm. gagné ko mhm. ci euh, faat euh, Fulbert Sambou ak Didier Badji lan la leen di apporter mais boobaak léegi ñaata doomu aadama ñoo fi faatu bi Ousmane bi ñu commencé dégg Ousmane Sonko muy agité wu ba léegi. ñaata doomu aadama bokkul dara ak manifestation ñoo fi ñoo fi faatu. non bokkul dara ak bu dee manifestation ngay wax bokkul. ça n'a rien à voir mais ñom, ñom, ñom, sen, ñom, ñom, ñom, ni ñi fonctionner wala bok ni ñu bëggé jël nguur mais si noonu la. violence terreur. manipulation intimidation non déedéet loolu mu leer. d'accord il termine ñu dem ci Ay tax daaneel Wa ñom donc ñom ñom non lañu gissé sen ay démarches. Mm-hmm. sen ay pratiques nous loolu lañ gis loolu lañ loolu lañ ñu wan. ban man Sonko am. nga accusé fii ni moom moo rey. Euh, mu ak Sénégal non xamuñ loolu. ban intérêt non maa ngi ñëw dégg la. <laughs> non parce que li nga terrible on va vous parce que non parce que dafa quand même li wax. non ñoom culture boobu am. culture de la violence. même seen verbiage. Mhm xam culture intérêt mais mais mais ñoo jël tout est permis c'est-à-dire en quoi bu en euh, euh, euh, quoi Sambou pour éviter que pour éviter pour éviter que la vérité éclate. quelle vérité. mais ñaata yoon la Ousmane Sonko taxaw. di di di di di tutoyer les forces de l'ordre di tutoyer les juges ba ci ay police gendarmerie.

taxaw fi wax ay 94 milliards. non bokul dara ak rey ah, rey nga wax éliminer une personne mais ñaar yoon la fi accusé mais Ousmane Sonko à chaque fois buy génn ci gémmiñam mais il accuse les gens le procureur du ko woo. te du muju fenn. lo jangat ci liñu ñu jot a wax fii légui waaw léegi euh, je veux je veux sortir un peu du dérapage. Mm. Euh, pour reprendre euh, euh, discussion bi fi mu démarré c'est-à-dire fi Ahmed Suzanne Camara démarré euh, te mu nekkoon un un un problème d'opinion. parce que bien que là il lan a tax et non moom. daf c'est parce que nous avons une position. xëy une position yi ñu jël de leen procureur Wallen parce que dëkk bi du une waay alors que moom il est en train d'exprimer des positions. Des dara rappel euh, constitution article 8 la tout citoyen a le droit d'exprimer son opinion par la parole la plume ou l'image Bep citoyen citoyens na sañ-sañu euh, fësal xalaatam ci Natal, ci kàddoom wala ci xalimaam kon à ce titre. même si nous, si c'est encadré hein, parenthèse long, c'est encadré c'est toujours encadré. même euh, à ce titre nag la ñu arrêté Nous avons exprimé dañu exprimer seen opinion. ni mhm. ci deewu imam ni qui ci deewu gendarme yi. Mhm ni dañu wax seen xalaat ci actualité politique Qu'est-ce ni mhm. ay emojis lañu ñu partagé emojis ni ay journaux satiriques les def mhm. donc expression d'opinion Pas Alé euh, liberté euh, de presse euh, wax opinion def enquête am ñu japp ko Fadilou Keïta c'est le dernier kon da fay delloo Sénégal ginnaw sur la question des libertés léegi euh, ñu avons ci question biñ ko posé man ci siège bobu lay dugg. Mhm. ci li disparition Philbert Sambou bi nga xam affirmé euh, euh, c'est un assassinat c'est des gens qui ont été tués. Mhm. mais je crois que jox Nanak nous asseoir de façon très sérieuse. Mhm. la thèse de l'assassinat de ces deux personnes-là. à la lumière de tout ce qui s'est passé depuis mënuñu écarter la thèse de la SNA tout tout converge vers cette thèse là. Donc, koy conforter kon. dama conforté. Mhm. parce que vais commencer ci waa APR moom li wax mhm. mais je vais me lire quelques extraits. de la lettre de Aminata Assome pour que koy déglu te liiruñu ko parce que aujourd'hui chaque citoyen doit craindre pour sa propre sécurité si même les personnes formées pour nous protéger, peuvent disparaître ou mourir du jour au lendemain dans des circonstances rocambolesques Moi, circonstances yu rocambolesques. Mhm. bon Légui, Moudem dem disparitions ajoutées à tant d'autres ajoutées à tant d'autres inquiétudes mhm. tant d'autres inquiétantes sont à l'origine euh, de biens de supputation le Sénégal est indivisible toute personne mêlée à cette affaire toute personne mêlée à cette affaire donc naît le soupçon personne mmh. mêlée à cette affaire mmh. Mmh. Hein? doit être démasquée. Enquête donc. Ainsi que ses complices. Une punition très sévère permettrait à tous de réfléchir à deux fois avant d'agir, déclare-t-elle. Elle, demande au président Macky Sall, mais également à tous les citoyens, les acteurs politiques, de s'investir main dans la main pour que la vérité éclate. kon xam nga mom la ñëpp di xalaat. Ahmed Suzanne ñu kan li mu xalaat ni dañ leen ray man loolu la xalaat te léegi la ko gëna gëm pourquoi parce que aussi wax da ngay am fu koy tek yow peut-être tu as du mal à wax à wax euh, euh, euh, li nga wax fuñ koy tek mais man je m'explique parce que kan moo ñu le procureur de la disparition par un communiqué.

plage des enfants euh, euh, Anse Bernard Tatou piscine foofu la piscine ak Cap Manuel. il mhm. fa daan dem foofu chaque mètre carré dañ ko xam donc quand bi dafa am ñaari mirador poste d'observation yu ko surplombé port dafa am un tour de contrôle comme bu a un aéroport tour de vigie service en tam mu nga fa donc on mhm. a ay moyens euh, électroniques de surveillance zone boobu c'est une zone facilement surveillable mhm. Bon, ça la présidence c'est une zone de sécurité c'est une zone militaire Gore Soreoul, ce c'est pas un grand périmètre pour des recherches alors pendant cinq jours on ne trouve rien là-bas on dit que euh, Fulbert s'est noyé ma quest Fulbert il y a ce qu'on appelle des impossibilités matérielles parce que Ce n'est pas de l'eau plate Ce n'est pas de l'eau stable mhm. c'est des courants qui dérivent man napp n'a fele les les c'est c'est la pêche au filet dérivant mhm. da ngay toog ci gaal seet sa Dans ni da ngay moteur c'est le courant qui t'entraîne mhm. le courant il va dans un sens pendant cinq heures de temps ça da lay yóbbu ay kilomètres mhm. pendant cinq heures de temps entre la cinquième et la sixième heure tu lay de direction Tu le moo dans l'autre sens donc vous dem dans l'autre sens dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre vous faites ne dafa am corps flottant vous koy double si c'est dans le sens de l'aiguille d'une montre da terre. teeral moo tax yenn saa ay corps di teer yenn saa ay corps de dem euh, nous allons nga dem beaucoup plus loin donc en cinq jours euh, euh, Fulbert génnul zone boobu kooram génnul zone c'est matériellement impossible mm-hmm. te kenn gisu ko s'y ajoute que Hans Bernard à côté am na benn quai de pêche bu ñu bu ñu tuddee teeru Baye Soogi mm-hmm. ay gaal yu ndaw ñoo fa

Avant l'établissement du certificat de genre de mort, procureur Nénanou, l'état du corps ne permettait pas une autopsie. Une autopsie. Mhm. ce n'est pas une personne qualifiée. Il a fait plus grave, le, procureur. Il a une attitude, monsieur le procureur, très suspecte dans cette affaire. Parce que le certificat de genre de mort, le procureur de communiquer. Nous citer euh, euh, les phrases du médecin légiste. médecin légiste, l'examen superficiel l'examen extérieur mhm. euh, du corps ne constate aucun traumatisme ni aucune trace de violence. Comme une préoccupation. opinion, l'état de décomposition avancée du corps ne permet pas de déterminer les causes exactes du décès. Les causes exactes du décès. Donc, pour un certificat de genre de mort, on conclut que le certificat ne peut pas déterminer le genre de mort donc n'est pas un certificat de on ferme les guillemets mm. ligra à la suite des guillemets on a ajouté ni encore moins une autopsie euh, l'état de dégradation avancée du corps ne permet pas euh, de déterminer les circonstances exactes euh, du décès mm-hmm. les causes exactes du décès on ferme les, guillemets mm-hmm. et on ajoute encore moins une autopsie mm c'est le procureur qui l'a ajouté c'est le procureur qui a ajouté que parce que médecin légiste bi li wax daf ko encadré ci guillemets mm-hmm. parce que nous ñu conclure à la noyade parce que pour nga conclure à la noyade il faut attester pour poumon bi mm-hmm. c'est le début d'un acte médico-légal mënuñu ko lutax mais lolu kon kon duñu mëna ni autopsie Mhm. Quand on cherche dans le poumon, on peut pas refuter l'autopsie. Mais bon, c'est carrément. Ouais, mais ils l'ont pas fait. Et pourquoi Ils veulent, pas Ils peuvent pas asseoir la thèse de la noyade. La thèse là ne tient pas. Et avant, on nous avait dit que le corps n'était pas intact. Le corps était démembré. Mhm. Le corps était, etc., etc. Alors, le certificat de genre de mort dit pas de traces de traumatisme, pas de traces de violence. Mais le ñu euh, c'est le Non, mais le corps ci yaram bi. parce que mais procureur moi ko waxoon ce n'est suspect c'est pas la première fois mhm. que nous avons un acte médico-légal qui sème le doute ou qui soit carrément faux mhm. parce que nous avons par balle premier rapport d'autopsie est devenu objet contendant mon collègue. Jasi ou semi le médecin légiste mais boobu ne hein? procureur Il ne il faut pas mélanger les choses non euh, non je je fais juste une comparaison. non qui n'est pas bonne. Bignona euh, c'est pas à toi d'en juger Moi, je parle plutôt. non logique pour logique j'appelle à la logique des téléspectateurs s'il te plaît. S'il te plaît. Non, pour je parle d'actes médicaux légaux. Tu ne peux pas me regarder sur on Voilà, je préfère. Je préfère. Parce que je compare deux actes médicaux légaux qui sont douteux. Parce que acte médico légal, vous conclure à un objet contendant mhm. et en créer la mort, procureur dafa douter ba commanditer un autre une autre autopsie hmm. benen autopsie bi conclure par la mort par balle hmm. kon ce médecin légiste là dañ ko un tëj parce qu'il a prêté serment il a fait un parjure absolument wax ji leeru la ah. il a fait un parjure hmm. kon tay a bu ñu ne Fulbert Sambou yaram bi dafa yàqu mënuñu ko identifier ñi famille bi dañu jëkëni du mom après ñu ni mom la le médecin légiste dit pas de trace de traumatisme ni de violence mais quand même euh, la dégradation est telle qu'on ne peut pas déterminer la cause du décès, mhm. bon, on aimerait bien comprendre. Et le procureur ajoute encore moins une autopsie. Comme une deuxième euh, euh, euh, euh suspicion. Mhm. Mais grand, bala nga jall nga bal parce que man euh, je crois que fini talk tok ni ci plateau bi li de def c'est du layam layamisme. yow xam nga ne li nga wax sénégalais dofuñu. Mhm. xam nañu mais ñu bari ñort nañ ne li ñu ñort moy dañ leena ray

d'accord dans ce pays Assam a Femme solo. Mm-hmm. solo personne n'est en sécurité vous ba mm-hmm. agents secrets ñu militaire, mm-hmm. militaires hein? mais gis nga ba mais qui gagnerait à les éliminer. non dañu bëgg réponse toujours euh, madame aussi ci euh, APR toujours.

tout le monde sait qui c'est. de toute façon on non non honnêtement non non mais dama wax ñaari ñaari non non non télé manipulation bi non télé nga mais hmm. da ngay la mais non la am wax kan la exactement non euh, non xam nañ ko. non man non mais non non la non non si si Sénégal la il hmm? y a deux choses on échange wala on laisse jusqu'à société après ñu jàll ci le poste il dit le poste il dit nous vous avons dit récemment que le téléphone de Pape Allé avait parlé et avait parlé trop d'infanterie. Didier Badji, adjudant-chef, et gendarme de la... Euh, et, le troisième élément est aussi gendarme. Arrêté suite aux enquêtes menées à fond dans ce dossier. Merci au général Moussa Tous les traîtres seront mmh. traqués et chassés de notre... Et chassés de notre... Ce n'est pas possible. Ce, poste-là... Oh, il faut arrêter. Ce poste-là... Mmh.

dérapé grave tu vas te créer encore des problèmes en accusant Ousmane Sonko mais moi je may bëgg que euh, c'est l'opposition parce que l'opposition a toujours un discours violent au moment où euh, les détenus d'opinion yi nekk ci kaso Ils ñu ils moo leen fa indi pour s'en xalaat kese ñu alors que dégg ngeen Ali Doumbour képp ku contre troisième mandat dañuy jël jaasi defante ko moom mhm. installer un peuple au pouvoir apologie ethniciste et violente mhm. dara di ku ci mhm. mais récemment te fofu dem ci taxaw un député euh, Makhtar Diop je crois de Mbacké il a dit au ministre de l'intérieur que pour nous lacrymogène doyatul nañu ligoté djenguñu tàbbal ñu géej jën yi ñu bal du tak te du muju fenn lolu un sentiment d'impunité. ils sont sûrs de leur impunité. D'accord. à sa suite un autre député euh, euh, en 2024 nous marchons sur vos cadavres. et on ne reculera pas. Mhm. lolu moy apologie de la violence. Mhm. à côté de ça vous faites ni Khadim de le président de dëj nous c'est mm-hmm. comme si c'est un cliché. Mm-hmm. d'accord pour terminer. pour terminer. Mm-hmm. pour terminer euh, conclusion à je Moi, qu'on se donne la main pour qu'éclate la vérité. parce que là, les gendarmes enquêteurs Ou la section de recherche. ils veulent une autopsie. du corps permis d'exhumer fi ba donc il faut que la lumière soit faite autour de ces morts-là Bonopi, mm. DJ Badji ça laay terminer mm-hmm. s'il te plaît mm-hmm. il était porté disparu mais maintenant on est sûr qu'il est mort parce que on a proposé à la famille de DJ Badji un corps ni le n'y l'a c'est lui mm-hmm. quelqu'un qui est disparu personne n'a dit qu'il est mort pourquoi on propose un corps à la famille mais on n'a len ndax ki sen nit la wala du sen nit. changer lolu c'est pas djé non dañ dañ bi ñu leen lan la leen aussi xam nga man il faut dégg yi man damay xaw donc il faut mu leen xam nga ñu gis corps c'est normal ñu woo leen aussi pour vous identifier mais ça ça veut dire ça ça veut dire que ñu leen ko proposé mhm. ils ont la présomption qu'ils ne cherchent pas un homme ils cherchent un cadavre c'est un cadavre qu'ils cherchent qu'ils proposent à la famille et ça c'est traumatisant pas forcément et j'avais un avis dessus mais dafa am ay général j'avais un avis dessus Avec ay mm. autorités yu mag yu nekk ci réew mi mm-hmm. est-ce que da ngay conforter lolu wala ay général ñu dégg ci lan euh, ci ci dossier bi ni ñu leen ci joxagne baaxaam mais gars non man gis naa benn poste bu ñu féliciter le général Moussa Fall. et forcément ce poste là ça appartient. Euh, aux gens aux gens du pouvoir. c'est terrible quand même hein. l'enquête l'a déterminé et ça tardera pas. d'accord fi mu waxtu bu ko génnee ma doon terminer rapidement qui aussi am na plainte bu ñu annoncé est-ce que c'est vérifié est-ce que a nga convocation. bon jotuma benn convocation ci presse bi rek laa koy dégg. kon convoqué wuñ la. waaw convoqué wuñ ma woowuñ ma ne ma plainte wala quoi que ce soit jàpp naa ne toujours de la manipulation c'est les gens d'en face. voilà donc comme ñoom dañu bëgg procureur woo comme ñoom dañu bëgg ni sen gars yi nekkee ci kaso bi ma nekk ci kaso bi waaw mais du ñoom ñooy juge. te du ñoom ñoo war wax procureur mu mu woo wala mu jàpp ma ci kaso bi. non non nañ jàpp Ousmane Sonko ba pare. nañ ko woo tant Ousmane Sonko procureur woowu ken mhm. kenn du ma woo mu parce que Ousmane Sonko chaque jour mu wax fi lu neex. def lu neex mais nga nga baal mais Ousmane Sonko waxul ni dañu rey diw wala dañu rey diw loolu Ousmane Sonko waxu ko waaw. Fusiez les anciens présidents de la. non non non non non non non. non fusiller c'est tuer. mais nous comparer loolu ce n'est pas possible. 200 000 personnes délogées déloger euh, l'actuel euh, euh, président de la République. non démocratiquement élu non c'est différent quand même yow da nga da nga accusé mais Ousmane Sonko chaque jour mu ne Macky Sall mo mo mo mo def nangam mo def nangam. non non bëgguma jaar ci moom mais waxul hein? ah. un opposant lu ko neex wax lu ko neex. def pas lu ko neex mais il est dans son rôle. ah non da nga accusé chaque jour mu accusé Macky Sall. Ousmane Sonko chaque jour mu accusé Macky Sall. à tort et à travers. ci lo xam dañ ko wara jëli. non procureur da ko wara wo da ko wara a déglu. lan problème Ousmane Sonko c'est quoi le problème Ahmed Suzanne pourquoi buñ le poser question nga def corrélation avec Ousmane Sonko qu'est-ce qu'il y a mais Ousmane Sonko chaque Ousmane Sonko chaque fois buñ ko interpeller mu def corrélation ak le président Macky Sall léegi nag du président Macky Sall moo koy tontu du nawlem man makoy koy tontu man may defante ak nga baal ma foofu xam nga Ahmed euh man jaaxle Ahmed Suzanne man de man de vraiment euh suma déggee sa kàddu gi man je pense que comme li gars yi wax lay wax yo procureur fi la wara fekk jël procureur fi la wara fekk jël parce que li ngay wax ni non je te jure hein <laughs> grand xoolal non nga baal ma li ngay wax ni da nga yeb sénégalais yi yàpp juste au Sénégal da nga yàpp sénégalais encore une fois et puis tu respectes pas. ni nga xamantene c'est la mais mais ñi disparaître dañu am kër am njaboot. da nga de respect sénégalais yi. ci li nga wax ni mm. weesuwul yabaté en plus li gëna graw moy mooy da nga affirmer que ne opposition ñoo leen rey li nga wax ni je pense que est-ce que yow amoo mais est-ce que ça va. li ngay wax. Ah, non parce que aussi non vraiment non pas xalaatam non nañu waxante dëgg Ahmed vraiment non lii nga wax nii. non mais mais mais ku wér dina wax lii. aussi mais toog plateau affirmé. mais est yow wér nga. non mais yow mais Ahmed dinaa yóoru. parce que est-ce yow ku la déglu xam dina jàpp ne